merci mbokk Diourbel mbokk Njaareem mbokki Sénégal tey nag euh, ñu ñëwaat ak yéen moom mooy seen première euh, édition bi nga xamante ne moom mooy euh, seen émission sunu sport sunu sport nag di am si Baol Time di site bi nga xamante ne partout dans le monde di ngeen ko mën a déglu tey nag sport bi local bi wax ak yéen si li nga xamante ne moom mooy si national bi wax ak yéen si international bi ànd si tamit ak ki nga xamante ne maanaam moom mooy Kader Sall Kader nag moom it. mi ngi fii teew euh, tey nag loolu mooy doon su li nga xamante ne moom mooy sunu programme maanaam boo ko déggee euh, si local bi am nañ fi li nga xamante ne moom mooy final euh, régional bi dinañ si waxtaan ak yéen muy final régionalu li nga xamante ne mooy wàllu championnat régional si région bi ñu doon tëj nag di boucler li nga xamante ne moom mooy seen championnat mu amoon fi final bi ñu tëggoon ko si stade Elimanel Fall bu Diourbel dinañ am ak yéen tamit waxtaan ak yéen si li nga xamante mooy championnat Ligue 1 bu Sénégal ak Ligue 2 dinañ si wax ak yéen wax tamit ak yéen euh, si li nga xamante ne moom mooy jëm si wàllum euh, foot bi nga xamante ne international Kader Sall di leen koy amal euh, tamit dinañ am ay interview yoo xamante dinañ ko fi déglu ku si mel ne Abdoulaye Fall ak kii di recteur Lamine Gueye bu université bu Bambey maanaam université Alioune Diop bu Bambey dinañ waxtaan ak yéen tamit si ak Maysa Ñinga Maysa Ñinga dinañ si ñëw ak moom waxtaan ak ñun si li nga xamante ne moom mooy ay projet ak mbirum stade bi dinañ waxtaan ak yéen tamit si li nga xamante moom CRA bu Diourbel amoon li nga xamante ne mooy séminaire conseil départemental bu Diourbel euh, di leen waxtaan ak euh, am na si wàllum championnat yi comme ni ma leen ko waxee Ligue 1 duñ def rek lu dul jox euh, kàddu gi kii di Kader Sall mu daal di nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo war a li nga xamante ne moom mooy foot international bi Kader na nga def. sant di la jaajëfal di jaajëfal képp kuy suivre Baol Time à travers le net di ko suivre ci locaux yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal. di xamal ni Sen Sport moom lañ leen di defal ànd ak Papis Diallo man maay def international maa ngi ñëw ci kanam wax leen lépp lu xew ci tugal ak euh, la ko wër. merci comme ni ñu ko waxee rek euh, sunu première euh, li nga xamante ne moom la ñuy euh, dëgtal muy ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Fall Abdoulaye Fall nag nekk président wu ligue football bu Diourbel président ligue football bu Diourbel nag muy Abdoulaye Fall moom la ñuy leen di dëgtal mu tarloo ko kaddoom après ba final bi jeexee ñu amoon nag moom li nga xamante ne moom mooy interview final boobu nag gis ngeen ko ni mu demee kii di université bu Bambey muy UADB di université Alioune Diop bu Bambey nag ñoom ñoo xamante ne mooy ndam bi si diggante ki nga xamante ne moom mooy euh, bokk jom euh, bu euh, Mbacké final boobu nag amaloon nañ ko fii si diwaanu Ndiarème samedi bi le 12 bi weesu amoon nañ ko foofu noonu nga xamante ne mooy si stade Elimane Fall bu Diourbel amoon na nag ñaari final yoo xamante ne waroon moom moo si waroon am muy si xam nga li nga ne mooy Ablaye Fall moom mooy final bu mag bi entre kii di équipe bu université bu Bambey ak bokk jom bu bu Mbacké waroon naa am finalu Medinatoul bokkul ak euh, équipe bi nga xamante ne euh, moom mooy ndaayaan si wàllum euh, loolu si wàllum junior yi la waaye mujj itam ndaxte dafa amoon réserve si ñaari équipe yi nga xamante ne ñoo doon joué demi-finale muy équipe bu bi nga xamante ne moom mooy équipe bu Médinatul équipe bu ndaayaan ak équipe bu bokk jom ak avenir bu Mbàkke ñoom ñaar ñoom ñaar dañ doon joué ñoom ñaar kenn ku si nekk réserve moromam ba mu réservé moromam kenn ku nekk daal di daan moromam ban daanee moromam nag ñi daan àtte nekk si nga xam mooy ligue ñoo dàq ñaari équipe yooyu yëpp na leen yéen ñaar ñëpp da ngeen doon fraude kon nag victoire bi moomatu leen ko euh, équipe bi nga xamante moom mooy Médinatoul moom moom a moo tax a euh, euh, woon équipe bi di avenir ba tax na final boobu mujjita am lan jox li nga xamante xamante ne moom mooy ndam li ñaar ñee dañ a dàq ndaxte euh, ñoom ñaar ñëpp dañ doon euh, fraude euh, ban fa jógee nag ñu ñëw si li nga xamante ne bu mag bi université bu Bambey ak bokk jom bu Mbàkke ki nga xamante ne moom mooy université a dugal li nga xamante ne moom mooy bi benn contre la def dugal li nga xamante ne moom mooy but boobu noonu Saliou moomu noonu moom lañ jox li nga xamante ne moom mooy meilleur joueur li nga xamante ne moom mooy euh, championnat bi euh, Saliou euh, nag nekk ki nga xamante ne joueur la bu nu ràññee mu nekk si wàllum li nga xamante ne si football bi meilleur buteur amoon na si si wàllum final bi meilleur buteur bi nag di Mor Sow nekk fi nga xamante ne moom mooy Medinatoul meilleur gardien amoon si di Sidi Sall nekk fi nga xamante ne moom université Alioune Diop bu Bambey meilleur joueur muy Saliou Balde mi ma leen wax léegi kon nag vainqueur ba foofu amoon na li nga vaincu bi du moins ki ñu am na 200 000 francs nga xamante ne moo gagné jël ndam li euh, am na 300000 francs ak jeu d'équipement même ki nga xamante moom lañ gagné it am na ko euh, président bi moo ko tegoon ki nga xamante li nga xamante ne mooy parrain moom moo auto euh, la boo xamante ne amoon na joué nañ ko ci fair play def nañ ko moom mooy président bi di di Ablaye Fall ñu déglu tamit ki nga xamante ne moom mooy recteur bi euh, recteuru euh, université bu Bambey euh, muy ki nga xamante ne moom mooy professeur bi di Lamine Lamine Lamine Gueye moom it wax na andi na ay kàddu si lépp li nga xamante ne moom moo doxoon si wàllum li nga xamante ne moom mooy final boobu noonu kon nag ñu jàpp ne loolu moo am si championnat local bi nga xamante ne amoon na fa ñëwaat tamit ba tey si local bi duñ fi génnagul ndaxte CRA bu Diourbel doon na am ak ki nga xamante moom mooy CCA benn formation formation boo xamante séminaire formation boo xamante ay points yoo xamante ne doon ko euh, dëgtal fii nga xamante moom mooy si conseil départemental bu Diourbel fa amaloon li nga xamante mooy final bi formation bi jàngal ay points maanaam si problème mu yi si problème mu yi si problème mu yi ndaxte des yooyu dafay nekk problème yoo xamante si euh, match yi euh, nit daf lay dañ am li nga xamante moom mooy ay werante mooy andi coow li ndax arbitre bi tiré na faute wala tiré wul faute wala nangam arbitre bi def na li loolu moo tax ñoom tey ñu invité woon leen fi nga xamante ne moom mooy si Baol Time ñu expliqué ñu point yi nga xamante ne am na duñ def rek lu dul leen ñoom it si li nga xamante ne moom mooy euh, seenu kaddu gin fi andi muy ki nga xamante ne moom mooy euh, Badara Diatta ak euh, Diouk ak ki nga xamante ne maanaam moom mooy Bitey ak ki nga xamante ne moom mooy Mbodj ñoom ñeent ñëpp ñu invité leen fii andi leen si Baol Time ñu wax si ñu déglu leen rek seenu kàddu si mbir moomu noonu duñ fa jógee nag dañuy ñëw si li nga xamante ne maanaam moom mooy foot local bi di euh, li nga xamante ne moom mooy Ligue 2 bi ak li nga xamante ne mooy Ligue bi euh, Ligue 2 bi nag amoon na ay match yoo xamante ne amoon na si weekend bi si dimanche bi euh, Duc ak Port doon joué Duc dafa mujj am ndam dóor ki nga xamante ne mooy Port par 1 but à 0 Renaissance ak Kayor Foot Renaissance ak Kayor Foot doon nan amal li nga xamante ne moom mooy tàggat yaram foofu nga xamante ne moom mooy san Ndakaaru waaye nag ki nga xamante ne mooy Renaissance dafa dóor Kayor Foot deux buts ak euh, ki nga xamante ne euh, mooy Africa Promo danoo match nul euh, zéro bi partout ndam demul ndam dikkul Etix ak gore Gorée dafa dóor ki nga xamante ne maanaam moom mooy équipe bi di Etix par un da ko fekk ji woon daal di koy dóor nga xamante ne moom mooy sa Thiès kii nga xamante ne moom mooy équipe bi di Ndar Géej ndax Géej nag moom dafa moom ak yëgoo de un un but zéro la ki nga xamante ne mooy Ndar Géej dóor ki nga xamante ne euh, moom mooy équipe bi euh, di yëgoo Kër Madior ak Olympique euh, bu ngoox Kër Madior dafa dóor Olympique bu Ngor Ndar dafa dóor Ndar Géej dafa dóor yëgoo di moins autant pour moi par 1 à 0 Kër Madior ak Olympique bu Ngor Kër Madior dafa dóor Olympique bu Ngor par 2 bi à 0 tey nag si altine gi la ñuy terminer maanaam dañuy dakkal li nga xamante ne la jeexal li nga xamante ne moom mooy seen 25e journée boobu noonu muy stade Massane Sène fa lañ koy joué sa Fatick maanaam Fatick bu 17h jotee EJ euh, Fatick ak jamono bu Fatick ñoom ñaar maanaam loolu moom derby local la boo xamante ne day am foofu sa Fatick ndaxte ñaari équipe yooyu noonu euh, nag dafay euh, nekk loo xamante ne lu doy waar ndaxte boo xoolee jamono bu Fatick mi ngi jël huitième ki nga xamante ne moom mooy EJ li nga xamante ne mooy dixième ñi ngi si digg li nga xamante ne mooy tableau sa Fatick muy si altine bi si lundi bi 14 mai foofu lay am am si li nga xamante ne moom mooy si Fatick euh, ñu jàpp ne foofu si wàllum championnat bi meilleur buteur bi onze but la dugal muy euh, Amadou Sall nekk fi nga xamante ne moom mooy euh, port euh, Amadou Sall nag dugal na li nga xamante ne mooy fukki bit ak benn moom la dugal kii ci topp nag ñi si topp maanaam fukki bit rek lañ dugal muy Gora Diagne bu Gora Diagne Diop nekk EG Fatick ak Ousmane Mbeng nekk Gorée ak Buli Buli Junior Sambou nekk fi nga xamante ne mooy EG Fatick neuf but it am na fa muy Badara Sow bu nekk Dukk moom moo am li nga xamante ne mooy neuf but kon ñu jàpp ne ne ci championnat Ligue 1 bi noonu la fa demee nationale une bi tamit am na fi vingt e journée bi muy dernière journée euh, vendredi bi nag euh, la amoon la tàmbali woon euh, foofu nga xamante ne moom mooy sa Kaolack amoon na fa match ASC Saloum ak ki nga mooy Kaolack FC ñoom ñoom it derby local la woon mais mujj gi ASC dafa dóor par bi à 0 ki nga xamante ne moom mooy Kaolack FC mardi bi 15 2018 centre technique tubaab Dialaw amoon na fa ay match yoo xamante ne am na fa mu ba 16h30 jotee moom lay am mardi bi HLM euh, day fay joué ak Gawral bu Vélingara euh, si stat Cambérène tamit si mardi bi bu 16h30 jotee ASC Cambérène dafay joué ki nga xamante ne moom mooy CNEPS euh, CNEPS excellence stade Nelson Mandela fële sa Mbacké 16h30 bu jotee si mardi bi ba tey ki nga xamante ne mooy avenir bu Mbacké day joué olympique olympique lay joué olympique bu moom lay joué si stade municipal bu Kolda bu 16 h si mardi bi ba tey dinañ am ki nga xamante ne maanaam mooy Kolda ak Daaru Salaam stade Maniang Soumaré euh, bu 16 h jotee si mardi bi ba tey euh, Thiès FC day joué ki nga xamante ne mooy sànc ba loolu si national une bi la euh, loolu si poule A bi la poule B bi dinañ am tamit si vendredi gi amoon nañ match yu amoon vendredi bi weesu muy 11 mai bi 2018 Racine moo doon joué ak ki nga xamante ne moom mooy Asfa noonu mu ñu joué match boobu dañ ko dàqandi RC Yoff ak Mbar Géej ñoom ñaar tase neen RC yoof dafa daan ki nga xamante ne mooy moom mooy Mbar Géej par 3 buts à 0 da ko atomisé euh, samedi bi 12 mai 2018 euh, euh, USB mooy Université Gaston Berger ak US Rail ñoom ñaax danoo danoo témboo danoo dugal kenn ku si nekk ñaari bal moom lañ dugal maanaam 2-2 si lanu daal di témboo jeudi bi 17 mai incha allah rabi 2018 stade Alassane Djigo bu quinze heures jotee. Agel euh, ak Walidaan dinañ tase bu 17h jotee Lusitana ak Amitié euh, ñoom ñaar dinañ tase Amitié FC euh, bu 19h jotee Zuya ak Daara ñoom ñaar dinañ tase kon nag ñu jàpp ne ne coupe du monde junior bi it résultat technique yi te incha allah bi ba tey dinañ si dikk ndax tey si national bi lanu nekk ba tey kon résultat yi un demi-finale yi dimanche la woon 13 mai dimanche bi weesu Jaraaf muy coupe du coupe du Sénégal junior Jaraaf ak ki nga xamante ne moom mooy Pikine ñoom sax danoo témboo euh, kenn ku si nekk dugal benn bal euh, waaye ban demee si li nga xamante ne maanaam moom mooy tiro bi série tiro bi euh, ki nga xamante ne mooy jaraaf dafa daan ki nga xamante ne moom mooy équipe bii di pikin par 7 à 6 maanaam dugal na 7 penalty yoo xamante ne kee dugal li nga xamante ne mooy si samedi bi 5 mai Euh, Teungueth FC ak Casa Sport doon nañu joué waaye Casa Sport da ko dóor par 2 buts à loolu lépp si coupe du Sénégal demi-finale junior kon mën nañu jàpp ne pour l' instant Casa Sport ak ki nga xamante ne moom mooy Jaraaf ñoom ñooy joué finalu euh, coupe du loolu moo am si euh, li nga xamante ne moom mooy si Ligue 2 bi. bu ñu fa jógee nag dañuy ñëw si li nga xamante ne moom mooy si Ligue 1 bi 26e journée Mbour ak Génération Foot ñoom ñaar danoo témboo zéro bi partout US Wakam ak Jàmbaar ki nga xamante ne mooy Jàmbaar dafa. daan bu méttee méttee métti ki nga xamante ne moom mooy US Wakam dóor euh, ko par 4 buts à 1 euh, Casa ak Linguère danoo témboo kenn ku nekk dafa dugal li nga xamante ne mooy benn but euh, Sonacos ak Stade de Mbour Sonacos dañ ko fekk fi nga xamante ne moom Mbour andil ko defet boo xamante ne bu doy waar daal di koy defal affaire maanaam door ko par 1 but à 0 Stade de Mbour dóor ki nga xamante ne mooy Sonacos tey nag si altine gi la ñuy àggale match yëpp Stade Alassane Djigo bu 17h jotee Douane ak Dakar Sacré Cœur ñoom ñaar dinañ testé du bari bu 17h jotee euh, Géejawaay FC ak Jaraaf ñoom ñaar dinañ testé stade Albouri Ndiaye bu 17h jotee Njàmbour ak ñaari tali euh, ki exempté nag si journée bi di 26e journée bi euh, exempté bi nag Tëngéej FC la meilleur buteur bi si Ligue 1 bi mën na jàpp ne am na 14 buts muy Thierno Thioub nekk fi nga xamante ne mooy stade de dix euh, buts euh, am na fa Moustapha euh, Moustapha Nam nekk fi nga xamante ne moom mooy duwaan ak ki nga xamante ne mooy Yankoba Jarour nekk génération foot ñu jàpp ne ne am na neuf buts Sonacos am na fi ab joueur boo xamante ne am na neuf buts waaye ba léegi nii dugalagut ndaxte dugal la ñuy xaar pour joueurs yi daal di mën a dugal pour Sonacos gën a mën a dem si kanam waaye nag presque championnat bi mi ngi terminé Ibrahima Fati am na li nga xamante ne mooy neuf buts moom la ñuy wax Messi Ibrahima Fati Dame Gueye nekk fi nga xamante ne mooy jàmbaar it am na 9 buts Amadou Dia Ndiaye nekk génération foot am na euh, li nga xamante ne moom mooy 9 euh, buts ñu jàpp si classement bi ba tey ki nga xamante ne mooy jaraaf moo jiitu euh, am 50 points 50 points yi mu am nag def na ñaar fukki match ak ñett yoo xamante ne jaraaf def na ko ki nga xamante ne mooy Sonacos am ñeent fukki poñ ak benn maanaam 41 points def li nga xamante ne moom mooy 24 match 24 match yoo xamante ne def na ko kon nag rawee na ki nga xamante ne maanaam ëppale na match yoo xamante ne kii di jaraaf mi nga xam ne moo jiitu sax vingt vingt trois points la am kon jàpp ne pour l' instant pour Sonacos euh, dabe ki nga xamante ne moom mooy ki ko jiitu jël première bi ndaxte instant yi kii am na li nga xamante ne moom mooy dix points yoo xamante ne euh, différent neuf points bu moom autant pour moi ndaxte jaraaf cinquante points la am Sonacos am moom la def génération foot moom mooy jël troisième am li nga xamante ne mooy quarante points avec vingt et un match euh, nit ñi ñi ngi toll si li nga xamante ne moom mooy vingt sixième journée bi fi nga xamante ne ñoo nekk si am vingt six points Euh, kii di euh, nga xamante ne mooy Guédiawaye euh, FC am 10 points Wakaam am li nga xamante ne mooy 7 points bu ñu doon terminer fii li nga xamante ne mooy championnat bi j'espère ne dina am ñetti équipe yoo xamante ne ñoom ñooy mais ak championnat bi ni mu demee ñu yokk li nga xamante ne moom mooy équipe yi moo tax Wakaam problème bu Wakaam yi moom moo tax jàmbaar ak tey bu fi championnat bi yemoon jàmbaar ak ki nga xamante ne mooy Guédiawaye FC ak US Wakaam ñoom ñooy wàcc kin doon wax ma mën a wax ne ne ñoom ñooy mën a jël championnat bu fi championnat bi yemoon euh, mën na ne jàppagul pour l'instant jaxaaf ak ki nga xamante ne moom mooy Sonacos ñoom ñoo jiitoogul euh, génération foot nag manqué na ko ay match yoo xamante ne joué ku ko euh, ñu jàpp ne ne presque loolu moo nekk li nga xamante ne moom mooy championnat championnat bi nga xamante ni am na fi nga xamante ne moom mooy si Sénégal xanaa duñ def rek jëli sunu avion gisee ki nga xamante ne moom mooy jëm si wàllum international bi muy Kader Sall mu jox ñu li nga xamante ne moom la jëlee foofu. waaw di jógee fële ca euh, Sénégal jóge fa ci foot local bi ak Papis Diallo dañuy dem ca nga xamante ni mooy tugal tugal nag bu ñu fa demee dañu leen di indil la xew ca France la xew ca Italie la xew ca Angleterre la xew ca Espagne ak la xew ca Allemagne la xew ca France lay njëkkee ni ma koy faral di waxee kuy xalam di ca jaayu Paris Saint-Germain defatina tina jël na raw gàddu bi Paris Saint-Germain jëlati na raw gàddu bi ñu ne déetawaay mu jël coupe de la ligue ñu ne déetawaay mu jël coupe de France ñu ne déetawaay mu jël trophée des champions kon mayewuñ dara bi nga xamee ni loolu am na tamit day am sargal buy am chaque année di sargal ñi am raayay ci meilleur joueur yeeg meilleur buteur yi foofu tamit mayewuñ dara Neymar moo ko jël moo jël meilleur joueur Cavani moo jël meilleur buteur bi loolu weesoo entreneur ba moom donte day dem moo jël meilleur entraîneur kon Paris Saint-Germain bàyyiwul dara France mais. Monaco moo topp ci ginnaa ginnaawam mooy équipe bu sénégalais boobu jaaw Baldé Keita moom mu ngi jël deuxième yàlla na ko téye foofu moom it dese na benn journée Lyon moo jël troisième moom Marseille mun na koo dab nag Lyon mi ngi jël troisième ak 75 points Marseille mi ngi am 74 mën na koo dab ndax 3 yooyu ñooy dem Ligue des champions te troisième bi sax day dem xëccoo ji barrage France bu dee France championnat bi indice UEFA mayu ko mu yóbbu ñeent ñett lay yóbbu te ñetteel bi day dem jaayante ji ko ci barrage bu dee ca Italie. Euh, sept yoon a ngi sept fois Juventus mayewul dara sept année doon na ko jël di ko jël di ko jël ba ñu wàcce ko ne ko da ngay sàcc mu wàcc lig 2 yéegaat benn année la ko luppe année ca des yëpp mu commencé ko jëlaat defati na raw gàddu jël na coupe d'Italie dóor Milan 4-0 ñu ne déetawaay mu jël championnat bi ak 92 points Napoli bu Koulibaly moo nekk ci ginnaawam AS Rome ak Lazio ñu dem ca Angleterre Manchester City def na jaloore nit mësta egg 100 points Guardiola def na ko ak équipe jël na championnat ba ba pare am 100 points Manchester United rival éternel moo ne ci ginnaaw moo am point points Tottenham moo am 77 Liverpool 75 kon ñeent yi ñeent yi niñ tegalantoo ñooñ ñooy dem Ligue des champions bu dee Angleterre leer na bu dee ca Bayern ca ca Allemagne na moom moo jël raw gàddu bi comme ni mu koy defee chaque année foofu moom benn équipe ba fa am la faral di tooñee Allemagne Schalke moo jël deuxième Hoffenheim moo jël troisième mun moo jël quatrième mun moo daan topp ci Bayern mais ren dafa lajj bu ñu demee ca Espagne Barcelone yaakaaroon na ni ren dina jongante ba mu jeex te du am défaite mais yàlla dafa dogal 38e 37e journée bi ci la ko Levante ne ko du fi amee dóor ko dóor yu métti. waaw da ko dóor dóor yu métti kon Barcelone am nañ déception mais nag saison bi baax na ndax moo jël Ligue des champions moo jël kii euh, coupe de coupe Espagne ñu ne déeta waaye moo jël Liga bi kon moom am na ñaari trophée yu mën a ñaawale mbokkam yooyu di waa Real mais Real nag bu leen fàtte ni 26 mai day ñëw euh, Atlético Madrid moom it ma nga topp ca raw gàddu ba nee na du bàyyi moo jël deuxième Real mii mbokkam benn dëkk bi ñaam ñoom daal ñoo toppalante waa waa waaw Valence moo ñëwaat ren jël quatrième place ah liñ mën a tënk ci li nga xamante ne nag moo am ci international mooy suñu mbokkum africain boobu di Yaya Touré doon football ca Manchester City moom moom day jeexal foofu nee nañ ko waaw sa kon. en tout Pour dire que vraiment ça a été une très belle finale. Donc disputée dans la ferveur, mais aussi dans la sportivité. Et donc vraiment, je, je réitère toutes mes félicitations. Euh, par rapport à euh, la Ligue et cette finale, bon, c'est vrai, c'est la première finale de la Ligue. Euh, donc, euh, comme je l'ai il cela quelques jours. L'objectif qu'on avait pour la Ligue, c'est de pouvoir organiser toutes les compétitions jusqu'à l'automne. Il faut d'abord chercher les moyens pour la Ligue, trouver un cadre pour la Ligue, et ensuite aussi euh, une bonne organisation, et ensuite aussi une bonne équipe pour pouvoir prendre en charge toutes les activités. Cela a été le cas. Et c'est ce, qui a fait qu'on a pu faire toutes nos activités jusqu'à ce qu'on ait organisé finale aujourd'hui. Mm-hmm. waaw di sant rek xanaa kontaan ci résultat bi parce que mobiliser ressources université bi ressources humaines ak ay moyens ci tournoi bi yëpp ba équipe bi ñëw jël euh, final bi yow jël coupe bi mënuñu lu dul kontaan ci di ci sant aussi joueurs yi parce que les premiers à avoir gagné c'est eux di sant encadrement bi di sant euh, toutes les autres universités de l'université yi nga xam ne euh, dañoo contribuer mais aussi di sant président de la ligue régionale de football monsieur Pape lay Fall moom mi nga xam ne dafa taxaw depuis que ñu plébiscité ko nommé ko. mu mhm. jàpp ci football bi ba tey jii ñu def final bi dans de très bonnes conditions. Mhm. Euh, lan moo nekk lu lu déterminant pour victoire bi tey. waaw li déterminant. Euh, kii yu bëri la facteurs yu bëri la d'abord euh, joueurs yi ñu taxawu leen motiver leen jàpp euh, jàppale leen ci seen football bi leneen li mooy wut benn staff technique bu compétent depuis le directeur des sports jusqu'aux entraîneurs je pense que ñoom ñëpp xam nañ euh, li ñu leen dénk parce que université bi moo leen ko dénk leneen li mooy en plus ñooñu administration bi daf ci dugal ay nitam dugal ci loxoom. Mhm. parce que ñooñu ñooy acteur yi wante bu leen ñeneen jàppalewul dañuy am ay tolof tolof. Mhm. ce qui fait que jël yeneen. Euh, compétence université euh, ku demee ne professeur Pape Ibrahima Ndiaye mi nekkoon vice recteur chargé du partenariat nekk président club bi daf ci dugal loxoom biir administration bi aussi dañu jël ñi ci seen xel màcc ci mbiram sport ñuy jàppale ñooñu nekk ci football bi. Mhm. leneen li nag mooy kenn mënul réussir ci sport te amoo ay moyens. Mhm. donc université bi chaque fois directeur de sport exprimer un besoin. sur tous les sports en particulier au football parce que football ñi ngi doon def résultat dañu woon xool xoola ko xolaat dañ doon yëkkati li ñu soxla jox leen ko jox ay moyen pour ñu gañee loolu nag moo tax ñu gañee def sans faute parce que kenn dooru leen championnat bi ba tey ji ñu ñëw remporter coupe bi honneur bu mag la euh, challenge la aussi mais nag li ñuy bëgg euh, pousse équipe bi ba mu bokk ci équipe bu élite Euh, euh, footballu Sénégal parce que boo xoolee ci àdduna bi eh, université yu mag yëpp dañu am benn équipe walla ay équipe sax ci mbiram sport mi université Bambey nag xam ngeen ne fu nekk dafay def ay résultats université d'excellence la donc excellent ci sport aussi lu ñu bëgg la am nañ ci yaakaar nag parce que xam nañ ne waa Diourbel dina ci jàpp président ligue régionale bi dina ci jàpp donc dootul affaire mbirum université Bambey yëpp affaire région bi yëpp la te aspiration boobu c'est à partir d'aujourd'hui dañoo bëgg a positionner parmi l'élite du football sénégalais. naa bi ni ma ko gisee d'abord dañ ci ñëw mais balaa boobu damay nuyu ñëpp euh, du nuyu sportif fu Diourbel euh, du nuyu en particulier le président de la ligue de football de Diourbel mooy Ablaye Fall boo xoolee. bokk naa ci ñi porté woon euh, candidature am pour mu nekk président Ligue Diourbel li ñu ci jublu woon rek mooy tey lii. Euh, ndax biñ ko gisee bi ñëwee ci ligue bi mu euh, li nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel daan ko jànkoonteel ci ay problème mu nekk wàllu finance li nga xam ne moom mooy wàllu matériel yooyu yëpp ren yemb na ndax ci compte ligue bi rek def na ci xaalis bu bari ay millions yoo xam ne tey def nañ championnat ba mu jeex ba tey ñu def final bi. te équipe yu ci ne équipé woon nañ leen jox leen ay équipement ak ay ballon loolu mu nekkoon ay promesse électorale yoo xam ne moom la defoon ne bés bu ñu ma defee président ligue dinaa ko def tey bu ko defee dañ koy félicité ci loolu di ci félicité sama bopp tamit parce que comme ni ñu wax rek promesse électorale ñu tenir ko à cent pour cent loolu nekkul loo xam ne lu yomb la beneen bi ñuy wax rek mooy euh, ligue footballu Diourbel am na yokkute bu mag Ah, di ci félicité ki nga xam ne moom moo ko daanaka moo koy piloté muy Eli Ibrahim Fall ànd ci ak l' ensemble des districts mu ñoom Boubacar Seye ak ñoom ñoom ay ñoom Pamar ñu yoroon organisation ren. fubal nañ seeni match ci jàmm ci teyu bakkan bam jeex bar tey jii ñuy def li nga xam ne moom mooy final kon dañ leen félicité ci lool ñun mbégte rek lañ ci mën a jëlee tey moo tax sax tey ñu teew comme final fête la ñun ñëpp ñu bokk fêtandoo ensemble. parce que ñëpp xam nañ may sa par rapport ak combat bi mu doon mëne ak réflexion stade Ely Manel Fall ci combat boobu lañ nekk bo léegi xam nga lii nekkul loo xam ne lu nit mën a fubale la mais dañ naan boo amul li nga bëgg. nga jàpp ci la nga xam ne moo fa sës waaye terrain bi tey nekk na terrain boo xam ne terrain bu impraticable la kenn mënut cee football mais nag ak ligu football Diourbel fexe nañ ba wut ay moyens recoller li nga xam ne moom mooy tàppo ak morceau yi ak yàqu-yàqu yenn yi pour mun cee feetu parce que moom lañ am mënuñu jël final bu toll ni final ligu football Diourbel di ko football Thiès wala ñu koy football luga wala feneen dañuy fexe nan lañ koy footballee Njaareem ba waa Njaareem gis ci ba beneen bi may wax tamit mooy mu ngi ci ay démarches yu baax parce que boobu ba léegi ma ne tooguma ci ci xeex boobu ma doon def pour stade bu ñu def ko dégg ngeen fi chinois yi ñëw nañ fi def visite yi ministre bi nga xam ne moom mooy Birima Mangara muy ministre du budget war na fee ànd ak ministre Matar Ba ministre des sports ñëw defaat dañuy visite li ma mun a jàpp ba jàpp ba ci démb laa ci mun sa mun a ak ministre wax ba léegi affaire yi yemb na li ñu war a jënd pour def ko ci muy nañ ko sous peu de temps incha allah bu gis ñu posé li nga xam ne moom ah, mooy mm-hmm. ma prononcé wu ci di wax mais ren bii ma lay wax nii dama cee a bi moom mënu ma xam nga man nekk nekkuma kuy nekkuma entrepreneur bi. Mm-hmm. ma nga xam ne ma koy non weer moom yaakaar naa du ko du ko mat. wala bu koy mat tamit ca la yem yaakaaruma mu mat ay lool parce que la ma gis mooy tout est disponible. pare nañ pour te may li nga xam ne moom mooy entrepreneur bi état bi li mu waroon a def ak moom waxtaan nag moom ba jox ko moo tax ma ne la suba daan di nga mën naa nekk suba mën naa nekk gannaaw suba comme mën naa nekk semaine prochaine comme mën naa nekk fii ak 15 jours mais li ma jàpp ba jàpp mooy loolu moom incha allah dina am man dem naa ba gisa sam bopp projet yi mooy war a def nag bofis am na yoo xam ne dama ko doon jéem a garde secret bu njëkk bi mooy am na équipementier bu néew Sénégal bu ñuy wax RENES la renaissance de l' équipementier sportif sénégalaise man man man maay directeur marketing ak communication bi yàlla def na may liggéey ak ay chinois ak benn sénégalais boo xam ne Chine la ne. man ak moom ñu ngi liggéey ci lool léegi li ñu bëgg def mooy dafa am benn usine bu ñu fi def boo xam ne matériel sportif rek lay defar te euh, nekkul Diourbel nag mais Dakar la usine bi di installé mais tamit day ay point de vente ci région yi nekk Sénégal yëpp loolu ñu ngi koy def incha dingeen di ngeen ko gis non bénéfice Diourbel li mu ci bénéficié wu mooy dana am ñu fi jóge dem liggéey yi foofu Diourbel li mu ci bénéficié wu dana tax équipe yi nañ daan amee équipement mu jafe leen dana leen yomb loolu loo laaj woon ba wut partenaire yooyu yàlla yembal na ko ba projet bi taxaw na lépp taxaw na ah, li ñuy xaar rek mooy ñu démarrer li nga xam ne mooy suñu activité te dinañ ko def ndax am na ay convention yu ñu war a signé ay convention yoo xam ne dañ koy signé ak li nga xam ne mooy président ligue football lu Diourbel yooyu yëpp dañu nekk loo xam ne dañu équipe Diourbel daal. du nekk mën nañ xalaat moom dina am centre non dina ca waaw centre de formation tamit ñu ngi ciy taxaw di ci togg foofu bëgguma cee sore parce que am na yoo xam ne dafa nekk te comme dama koo seq ay nit bugguma def euh, li ñuy wax naan violation kii viol dérégulation ba nga xam ne ñu doon mais centre moom incha allah Diourbel dana ko am te centre boo xam ne centre international lay doon. Mhm. bu ci amul benn sax bu ci amul ñaar sax lu mu gàtt gàtt dana ci am benn ñu ngi ci liggéey bëri ak ay partenaires yoo xam ne yu baax la loolu nekkul loo xam ne dañ koy wax gum mais dañ koy téye gis parce que comme ni ñuy wax rek Diourbel il ñu gis taxaw ñu door a wax ne noonu la te et sax man noon laa ko gëmee parce que ci loolu laa yàgg dox tant que gisuma li nga may wax. dama naan amu amagut loolu daal ñu ngi def luñ mën na def daal ba football jëm Jurbel jëm ci kanam bu soobee yàlla ñu ngi ci tànk yooyu ñu ngi ciy waxtaan ak ñu ngi ci war a waxtaan pour loolu am. sama rêve Papis sama objectif nekkul sax ay nit ñi am xaalis wala employé am yooyu d'accord naa mais tey sama rêve bi ma am ci sport surtout ci football mooy ñu amaat des internationaux comme niñ ko amee woon boo xoolee ay ñoom Issa lañ amoon ay ñoom Thierno Tall ay Mara Tall ay affaire yooyu te équipe A bi sax xëy na yàgguñu fa accès man sama rêve dëgg-dëgg mooy potentialité bu nekk fii tey ñu dem ba incha allah fii ak cinq ans wala dix ans ñuy dégg doomu Jurbel boo xam ne Jurbel dëgg la dëgg ci équipe yi nga xam ne ñoo fi ne ci la soxeekoo dem football ñu koy dégg ci équipe nationale bi su loolu amee rek xam ne man la ma doon wut rek wàcc na ak ak structure sportive yoo xam ne de haute gamme lay nokk qualité yu baax parce que football bi léegi boo ko bëggee def il faut nga am ay instructeurs sportifs yu baax loolu mooy yor li nga xam ne moom mooy ab football mais munoo ne da ngay football am ay joueurs yu baax yu am qualité am terrain yu mel nii loolu munoo te développer football bi nga bëgg a def. ton Diourbel rek mooy la daan lancer rek ba ñuy def stade bi waxoon naa ne am nañ ab bijou mais bijou tamit boo ko amee da nga koy téye te amul benn suivi bu jaar yoon nit ñi fi ne xam ne li fi ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp di ko sàmmal suñu bopp bu boobaa tamit day yàquwaat la ñuy wëraat di wax ne nañu defaral état nag nekk na fi pour defar mais ñi nga xam ne ñoom la état administratif dañ fee war a nekk pour jouer li nga xam ne mooy rôle suivi ak évaluation suivi boobu il faut ñun ñu koy sàmmal suñu bopp. tey doo demee ci dëkk yi gën a kawe dangay xool ne nit ñi nit ñuy téye li nga xam ne moom lañ moom patrimoine lañ ko def. bu ñu ko defee nañ ko def suñu patrimoine bopp ku nekk na jàpp ne sa yëfu bopp la boo ko defee rek euh, bu boobaa dina yàgg te liñ ci doon séntu yëpp dinañ ko ci am. waaw émission suñu fort concept bu rafet la. Ah, li ma gën a frappé ci émission bi mooy qualité image yi nga xam ne moom la am ak li nga xam ne pertinence question yi ñuy posé parce que Diourbel tamit dafa soxla lii ñun il faut ñu am suñu autonomie mooy ni may waxee rek chaque jour nit ñi dégg ma naan may sa benn concept lay muy Diourbel d'abord waaw fa lañ dëkk nit ki bala ngaa développé ab ab réew da ngay développé fa nga dëkk ba pare développement ci kër la commencé ñëw ci dëkk ba nga dëkk door a dem ci li nga xam ne réew mi ngeen ngoon bokk te seen émission sport bii ngeen def bokk na ci liy jëmal sport euh, Diourbel ëllëg parce que ñi koy seetaan ci YouTube bi di ko seetaan ci Facebook bi yemuñu Jurbel yamuñu Sénégal dem au niveau international lay dem te lii rek mun naa jaay ay jour mun naa jaay ay ay ñi nga xam ne mooy ay techniciens yi fi ne. Euh, kon dañ naan la may sa yaay nga ko gisee. waaw man maay premier partenaire wax naa leen ko sànq. Uh-huh. nee naa leen bu soobee yàlla Renes dina sponsoriser li nga xam ne moom mooy émission bi. topp leen incha allah lépp luñ ci mën a def nag ba mu gën a amélioré wu qualité gi yëpp def dinañ ko ci def incha allah.